Abdoulaye Ba ci liggéey bi di nuyu aussi sama collègue presse donc man am naa question yu bëri yu ma la bëgg a laaj mais dama laaj ñett rek li des ma bàyyi ko gars yi xam naa ne question yi moom boobu gars yi daayoon rek moom mën naa laaj parce que nekk na ko il fait partie d'une famille musicale tout à l'heure le manager de Kera Seck wax na ko est-ce que ñooñu dañu amee plan de carrière c'est-à-dire buñ demee bay engagé label sax donc dañuy dindi projet teg teg ko label bi et que ñun ñu nekk sama plan de carrière la plupart des artistes dañu dem ci kii label dafa yóbbu plan de carrière et c'est important à continuer ci label boo continuer sa carrière bi dañuy laa demee est-ce que Keba yow moom it Bambali am nga plan de carrière pour léegi est-ce que yaa ngi bàyyi seen kër yi am na artiste yi nekk biir góor góor ñu ngi biir góor góor mais bon le biir partie bi biir góor góor mais wala yéen ñi ci ngeen ñi ñuy def est-ce que yow par exemple nga indi plan de carrière boo xam ne nga a lagal la koo sànni ñun produit album nangam wala presse ci artiste nangam ñu ngi dem kuréel ko c'est-à-dire téere boobu bu jëkkër cee daa fekk sax studio wala label bu ñu soxla boo xam nga di Mama Ly ci jour la presse bi ñu njëkk a bind ci jour bu rëy a rëy est-ce wala dañ ko jënd njënd ba xam ne foofu amoo ko góob wala mënoo ko percé moo tax ñu ñëw ci nawet bi ñu ñëw ak aussi su ñu ñëw fekk ci ay daanaka est-ce que dina mën a dina mën a percé ko jërëjëf. waaw yaakaar naa sa question bi njëkk mooy ndax indi naa indi woon na point de caméra c'est ça donc je pense que loolu sama manager euh, Kanzi dina ci gën a développé dans tous les cas il a signalé au départ. kan nga xamal ne leen que ne balaa ñu ñëw ngir loolu ñu ngi woon am na yoo xamante ne teg nañ ko mais xam nga tey mën naa ne bu jëriñ woone bu ñu yàlla wane ne jëriñ woone tey ba ñu mën a collaborer loolu c'est un plus dafay gën a yokku mbir doole rek dafay gën a yokku mbir doole dañuy gën a accompagner ñoom aussi ñu am seeni plan xool ni ñu ko bëgg a ñu waaye ñoom dañoo fekk ci suñu plan ba pare plan de carrière moom yaakaar naa mën nañ ko laaj keneen na plan de carrière waaw maa ngi jégalu de mon frère loolu moom sax seen mën a am naa ko beneen bi beneen bi beneen bi ci label nga jógee ñëwaat ci beneen label. day liggéey ak ñoom. waaw boobu mooy boobu question bi am na benn boobu mooy production yi. jëriñ boobu production. ñu ngi gis ñu ay studio wala bu ñu tëgg dañ naan benn semestre moo tëggal artiste yi lan la ñu euh, euh, est ce que ne lépp war na ko soxla ci musique jëriñ la ne am na ko lépp loo xamante ne waykat na ko ci am na ko xam na la amagul public boo xamante ne tey da leen déplacé parce que nit na leen ñu dëgg nañ Bamba ñu dëgg na ko ci beneen bi si topp mooy la fekk ma jóge ci nawet label yi ma jot a jaar yëpp bon mën naa jaar jaar la expérience macha allah nag mën naa sant yàlla amul kenn ku ma ci ñaawoon wala amul kenn koo xamante ne am nañ ci benn numéro ba ku romb sa morom sëkk amu vraiment adduna mooy seetaan ñoom ñëpp dañ mooy seetaan dañu wax loo xamante ne amul am ci kenn koo xamante ne tey mën nañu taxaw ne lii lañu jote wala ni moo xew Matar Diop soo mënoon yàlla dogal mu jaar ci ay loxo mu doon benn collaboration waaye mosuma signé foofu The Best Production nekk suma frère pendant des années comme ma ko mënee sentir même en état bi jëlee noonu Zabest xalaat defar na dara ñu àndandoo ko liggéey ndax boo seetloo label yi ñoom ñun ñëpp ñoo far ñun ñëpp ñoo bokk day baay amul kenn ku ci bambaane amal xaama yàlla amul fépp fu ma jaar dugg naa fa bu rafet génn naa fa bu rafet alhamdulilah yàlla na dina leer c'est la première fois ci sama carrière dama dama jëmale maa ngi soog a signé ak label mu leer loolu nag dafa am ñoo xamante ne bëri parce que c'est la première fois may signé ci label te ci góor te ci jëriñ la la tàmbali waaw. donc su ma dee c'était pas am contrat. Mina Xatam Sénégal dañu ko commencé laaj ko Mina Xatam RTS Sénégal donc man damaa amoon question bi nga posé Fatou Ndiaye yaa ko wax sànq que mosoo signé ci benn label la première fois que signé ci label Jéeri Bana Production ñu xam te dèjà nga bokk ci famille boo xam ne famille farmaare la macha allah sa papa nekk waykat nekk aussi waykat donc yow lan moo la poussé si label Jërëm lan mooy say ak entente parce que tey boo demee ba ne c'est la première nga signé donc toog nga xalaat xalaatam ngay xalaat si Jëri Ngoné xam ne amul woon ci sa carrière pour mu mottali ko. waaw tout d'abord yow wax naa ko au début yàlla dogal na ne jëriñ ngeen ni moom xam nga def na ay exploit def na ay problème fii ci musique def ay problème fii ci culture Sénégal Sénégal macha allah fa ma jógee nag comme ni ma ko expérience laa ko jàppee ndax ci mel ni baax am di doon nga wax borom mën sama nijaay la moom sama yaay bokk ngay bàyyi kooku soo ko bëgg moom signé contrat da ngay gis studio bi ñu foofu sama kër la nekk fii studio bi mu bëgg nekk Bawandi foofu la dëkk su ma sentiree dem na liggéey leneen ak leneen pour denc loo xamante ne sama conséquence su ma ci waxtaanee samay dirigeant dama ci nekk ndax studio bi mu ngi sama biir kër fa laay travailler sama bopp fan laay defee lépp loo xamante moom la artiste ci la war ne xam nga jëriñ nag mu comme ni leen ko waxee dafa ci yoon bi mu gis euh, yàlla moo tamit seen yéen loolu laay wax te man li tax ma am fit bi am confiance bi mu ngi signé pour la première fois ak jëriñoo dafa fekk ni comme ni ñu sama biir kër laa dugg comme ni ñu mënee wax kër baaba am di loolu kër yaa di sekk di sama mag ndax jëriñoo ni moom ay mbokk la que ce soit clair ay mbokk la maag moom benn béréb bi la maag jëriñoo sama papa ci gis naa génération bi macha allah ñu ngi ko def ñu ngi naan je parle xam nga mais loolu bu ñu koy wax c' est parce que gis nañu pas yi Papa Keba di def ak exploit yi mu def ci musique ba tax na kenn mënu ko kenn mënu ko génne ci musique sénégalaise macha allah mais loolu tamit bu ñu ko waxee vraiment ñu ngi remercier ku ñu jéem a nga xamante ne moo nekk ci ginnaaw. kon lu mu ne Bambara Seck bu ñëwee loolu bu ci yàlla amee Sénégal yi jàppale ñu am ci je pense que gisuma lan moo ñu tere atteindre suñu objectif te man lépp lu may def dama ci waxtaan sama waajur ku ci mel ne sama papa Mapenda Seck ñu ngi défense chaque jour que jëfee ñu ngi déggante via WhatsApp lépp lu may def lépp lu may war a dugg dama ci waxtaan ak moom mu wax ma ci xalaatam wax ma ni ma ko gisee. sama yaay Ramatoulaye Ndiaye chaque jour que defee ci lépp lu may dégg ma waxtaan ci moom mu wax ma xalaatam ma ñëw nag ci ñi nga xamante ba ma tàmbalee sama carrière bari na ma dégg vraiment ñu ba ma yegg see fii tey gannaaw yàlla suñu borom ñoom la ñoom ma nekk na di lim seen tool allah mais yàlla nañu yàlla fay waaw li tax ma am convention signée ak Diourbel pour la première fois ak Label euh, si c'est à dama koy defaat dama hésité ma waxtaan naa ñu ma war a waxtaanal et gis naa sama kër laa ñëw gis naa lan mu liggéey ko xam moom Cheikh xam ne dafa bëgg li muy def xamal li muy liggéey fii kenn mosu koo gis ci détail ba dugg ci ay détail xamul dara liggéey te li ma ci gën a moo doon liggéey nit ki te du séntu ci yow dara moom li ko mooy Sénégal ndax doomu Sénégal la ñëw Sénégal yàlla ko ba ñëw investir ci musique sénégalaise ci culture sénégalaise macha allah ñu koy ñaanal jàmm bu defal ak wér-gu-yaram waaw loolu kese la vraiment. asalaamaaleykum boss c'est Fatou Ndiaye IPTV en fait question bi ma amoon pour laajte ko mooy si suñu communiqué wax ni le fait nga transféré ñëw tax nga def ko c'est un moment kon beneen label yaa ngi doon gaydee label bi mais c'était pas à 100 pour cent waaw dama woon moom sax c'est tax ñu souligner loolu mooy maanaam daf ci la famille daf ci jiitu ba pare mbirum famille daf ci jiitu ba pare ndax xam nga euh, sama yaakaar li tax ma ne c'est une nouvelle mooy vraiment musuma collaborer ak déjà di jéem a def conférence de presse wala ñu demee noonu parce que ñu ci impliqué woon yëpp dañu mel ay nit yoo xamante ne dañu sori lool ci man yàgg naa ci sama carrière moo tax li tax ma ne am lu ma jot a échanger ak sama papa ma ma jot ñu ne Balla Seck moom Cheikh ma ne ko jëriñ loolu li tax ma ci lépp lépp lépp ndax mu jël temps mais xam naa li tax mooy Sëriñ et je le encore dama am mbégte trop trop vraiment dama am te dama gëm dama xam fi ma jëm ak Sénégalais dama xam loolu waaw loolu kese la jërëjëf ala na année label yooyu yow mosuloo ko def contrat mais dañu gis Bambali côté bi nga xam ne am na ko ci feeram muy Wally Ballago Seck le fait que Bambali jàpp ci label yu bëri ba tey jii muy door a signé contrat lan moo tax demuloo nga nga fixé wu ci sa côté feer yéen ñaa ngi liggéey. waaw kii boobu mu koy nuyu sama grand